diggante soppeek say noon di woote lu ñenn ñiy wedd ñenn ñi di ko saxal nga ñàkk looy wax ne leen nangam dina am te amagu nga ne nangam dina am te fii lay amee te it yóbboo ko ci dat bu sori ba doo ko fekk dina fekk sa dund sa fasu la yéene tuxu doo tukki Omar ibn Xataab ne na keroog ba yàlla di wax naan si suñu jom bu yu lu du baax dana keroog jaaxle naa de yàlla seen source ci siini ajaayibi rasulillahi ak mujisaatam bi siin fële ci suratu Qamar zoya rewut jam waaye ne la maa ngi ko nangu yow ma fàtte Makka bismillah suuf alquran boobule nga xam ne moom la borom bi jug ci ne ku bëgg a gidd bu borom du réer du juwaale ci léppam na ko siiwal mooy wax ak yéen nag baat yii may bëgg a nettali inna allaha ya'muru bil adl nañ taxal bil adl juróom benn yëpp la ñett ñi def ko santaane ñett ñi def ko tere ñu jëkk ci yi mu santaane santaane wu ko noppi daf ko santaane dige teraanga teg ci te du war mukk lu mu xës dige yi si des daf ko tere tëkku teg ca bari na nag lu mu tëkkoo annulé ko waaye mosula dige mukk annulé ko parce que dige teraanga la tëkku mbugal waadu la ak waaniddu yàlla dina tëkk ba mu yàgg mu annulé waaye du dige ba mu yàgg mu génne cët teraanga ju mu dige ju mu doon dana ka def na mu ko digee bari na nag mu tëkku ay duma fab ko annulé inna laaha subhanahu wa taala yaamuru yaamuru bil adli premier point santaane bango xadli ñu ngi koy firee mandu waaye istilaam la mais ci muxa mooy firi yemale foo koy dale ci sa ngëm bañ a sartak ci sa jàmm yàlla waa ji ñëwoon tawat rasulullah yi mel ne tawat ba mu ko tawat dafa décider ci continuer di or dootul dox lu dul jant soo continuer di julli dootul mos nelaw na bi dafa ree na ko déedéet du noonu sa jëmm ji am na ci yow àq foog nga jox ko ko boo ko joxul maandu woo dana lay laaj nelaw soo gaan koo def nga musiba war nga dina la laaj lekk soo gàntoo maandu woo sa jabar am na ci yow àq soo ko ko joxul maandu woo sa jabar am na ci yow àq soo ko ko joxul maandu woo foog nga def xadd ba ñu nekk ifraat wala tifraat dëgg la suñ borom terewul gaa jëfandiku ci yu neex yi wax na ko qul man harama terewul it jëfandiku ci yu rafet yi qul man harama zinata allahi la tuxrija lil ibad wa tayiba mais mën sa bopp ak jekk du la may nag ci ndem sa moante ngay xàddalu foo tollu di sañse du la may it nag foo tollu di lekk lu neex ñoom dañu wax ne sañ sa ñaare xew-xew wala jaamu ji yàlla julli ji jumaa wala korite wala tabaska wala lu mel nii la bëgg nañ it loo ko mën-mën te xëru la lool lu neex nga di ko jëllale léeg-léeg ak loo ko am am am na sax ñoo xam ne dañu wax ne deux fois par semaine ci ci ci la doom aadama war a jëfandikoo ñam wu neex parce que dafa am lu muy def ci nit docteur yi sax soo waxtaan ak ñoom pire danañ la teste ci lool foog nga naan maanaam yemale sa àqi bopp foog nga yemale sa àqi mbokk sa àqi jabar sa àqi bàyyima sa àqi mbubb sa àqu néeg sa àqu lal sa àqu basan sa àqu satala sa àqu kurus yooyu ko ci sànq ak xam dana doon loo xam ne dina jur ñàkk bokk ci jëf li borom bi wax premier point yàlla bëgg na iazan duggoon naa ci lëpp ba nett li leen gaa yu baax yooyu fi ñu jaar ak li ñu jot a def ñett ñooñu dañu bëgg a njekk nga di ko def di ko def ak koo xam di ko def ak koo xam di ko def ak ku ko yeyoo di ko def ak ku ko yeyoo wul soo defee njekk ak ku yeyoo njekk yaa moom njekk la soo defee njekk ak ku yeyoo la njekkit yow yaa moom njekk la yow ma ko def ana perte mais bi firi na ko an taabudallah ka annaka taraahu waaye kooku prime gune yu ndaw yi la ndax ruya boobu du ruyatul ayni musaahada la musaahada dafa jëf istiqbaalu wijatil mawlana tabaraka wa taala gaa yu baax ni danañ koy def Moustapha sallallahu alayhi wa sallam jàngale na jëf ju mu doon nga feeñal ca ak mandu ak yemale bokkoon na ci habitude yemale fekk na Seydina Omar ibn Xattaab bi di jàng alquran di wax ca ko ma dina ku mu tax nga yëkkati nii sa baat ba mu xoy mu ne ko dama bëgg yee ñiy gëmmeentu dàq jax-jaxi seytaane ci sama xel mu ne ko wàññi ko tuuti wàññi sa baat tuuti jàll fekk si dabi ba kër di jàng alquran di wax ndànk na bi ne ko sax sa baat suufi nii mu ne ko ki may déeyal neex na nopp mu ngi ciy dégg mu ne ko yëkkati sa baat tuuti waaw équilibré xaw ma waaw waaw plus exotoxa waaw addis baa wax loolu alquran li nga wax abaa fàtt li ma li addis bi wax ndax aaya alquran bu ne am na addis bu dëppoog moom léeg-léeg sax gis addis boo xam ne dina nekk nas ko ci quran ni alquran di nekke ni masalan tariqa di defee nasku ci masalan sharia di ak yu ñëppante loolu yëpp nga def njekk ak ko ko yeyoo sa yoon dafa njekk rek koo dégg muy matt baaramam di wiccax di réccu lu mu defoon dafa defantewul woon ak yàlla li ma def fi ma jaar ak moom ya def sa bopp yow mii wëcc yàlla di defanteeg nit nit mu goree bi nii nit mu gaaw a fàtte nii nit mi nga xam ne na ma yàlla baal lu mu faat lu mu faate fàtte na ko yow kañ bul mer mereel sa bopp da nga war a jëfanteeg yàlla yàlla du or du wuruj du fàtte du neenal jëfi kenn jamono booy jëf te jëf ji yàlla rek a tax doo xam doo dellu ginnaaw doo mer ndax xam nga ne inna laa laa yudion ajral muhsinin waa ji sukkandiku woon ci jëf njëkk ak kooku mën a defal dafa dekk toog di bay asamaan si xiin ut dëmm yu métti dëmm yu métti tararararara mu samp guppa bi ne bëggal ñett jëm ci genn taati garab pour seelu ca ba mu jubee ci garab ga mel nam ñàngoor dawee ci paxam jëm si ci garab gi pour mel ni koy seelu ndeket dafay daw noon mu ne jasut ngir jàng jàngi na ko bul taxaw làq ma dimbali ma noonu ma topp boo xam ne bu ma dabee gàmm waa ji ne ko ne ma laa def ama ne bu ma la dugal ama pax mu ma la jox mu ne ko da ngay ŋaang wan na ma xala loolu day dina diis lool ndax ñu doom aadama ak jaan dañu noonoo bu yàgg mu ne ko waaye dama lay ñaan njekk njekk mooy ko la musu la defal dara di sàkk ci yow lu foor mu ne ko wax na ma day def mu ne ko damay gëmma nga am dinaa toppe ko ngelaw tàbb ci sa biir mu gëmma nga am jaan di def noonu tuuti am ku ne deret yor yet ne ko amul ñàngoo mu fi romb mu ne ko gisuma ko de mu dem romb waa ji ba sori dellu si waat ne ko su ma ko gisoon tey mu xam ne tong yàgg yi may tool amoon naa sañ-sañ ak mën mën a fayu waaye bu ma daje woon ak moom tey tey lay gëj a direeku ci suuf mu ne ko gisuma ko de mu sànni yëpp ñibbi ba jaan ji yëgee ne waaja dem na mu daal di wax ci biiri waa ji ne waa ji dama lay laaj nga taamu ci sa xalas yi laay jëkk wala ci res yi xalas mbaa res nga ma wax mu ne ko waaw mu ne ko ana wóolu réew mu ne ko yaa ñàkk fayda noonee li jaan ak nit umpul kenn dama ne taamul fi may tàmbalee mbaa ma taamu fi may tàmbalee lu mel ni biteeli ndox ci garab gi ne yuruur tuuru ci diggante waa ji fi mu taxaw ci kanamam naka la tuuru ba arrêté rek muy jëmm ju weex ba di ko joxoñ benn morsu benn xob bu garab bu toll ni fuddal li yaar ko ne ko sex mu soog ko yëy ko wannaa su ko diir bi ne gudd mu soxla boppam làqu génn tànk jaan gi def ay doom lu weex loola ba muy bëgg a dem mu ne ko nuus ne ko yow yaay kan mu ne ko maa njëkk maa nga dëgg ci taati araf jamono bu nit defalee morom ma njëkk mu nar a def njëkk di yàlla yebal ma ma ñëw fay njëkk dafa njëkk nag def ko def ko koo xam def ko koo xamul def ko ku ko mat def ko ku ko matul soo ko defee ku ko mat yaa moom sa njëkk soo ko defee ku ko matul yaa moom sa njëkk moo tax inna laa yaamuru bil adli nga ak kay bëri sëpp yëpp na bi sax daan na wax ne sun borom jëppi na bàyyi buy gënale ay doom yaxla hadis la gënale ay doom alquran hadis bi alquran sant na la yemale ina abdul bil ihsan waaye hadis bi wax na ko abu hurayra nettali na ko nga songa nag di defante njëkk ak ñëpp soo pare nag wa iitaa'i zil qurbaa haqqahu gisuloo wax bu dóor laa wala tusriku bi shay lu ci tegu ah wa bi walidayni ihsana lu ci tegu wa bi seen qurbaa lu ci tegu wal yataame amul bi masaakina amul bi lu tax yàlla am bi zil qurba am bi walidiini am bi donc bu doo laa wala tusriku bi shay ne wa bil walidiini ihsana ne wa bi shay qurba ihsana bàyyi bi continué rek nag indeetul bi li tax nag zil qurba am bi ñoo taxaw taxawaaye walidiini ndax wal ammu kal abdi wal xaalatu kal ummi yàlla nee na addis bi nee na bàyyi bu ndaw baay la mu xam baay ak ndey la bokk sa baay wala baay wala ndey bàjjen yaay ju ndaw yaay la moo ko moxtee bokk ndey ak bàyyi wala ndey lañ bokk wala bàyyi defanteel ak ñoom njëkk gis nga alquran gis nga alquran nu muy tëralee inna hada alquran yahdi billati hiya ahsan la yahdi billati hiya aqwam kon gis nga nu muy tëralee dafa santaane ne nang ma gëm man yàlla gëm goo door ma ñëwee dara dooma yemale dara soo ci paree sa ndey nga defal ko taraan soo ca paree sa bàyyi nga defal ko taraan soo ca paree ñi bokk sa ndey ak sa bàyyi te jegeñ nga defal leen taraanga ñi ci des nag nga wax leen jàmm parce que taraanga mënu la ma tale wa qulu nag li naasi husna ku jël ku ku mën a am boobu koppar jox sa pap jox sa yaay sa rakk yaay sa bàjjen sa tànn moo tax bi mu tuddee ñi jegeñ def na nag ñi ci def nag wa xooloo li naa si us nag ñi ci def ngeen waxante ñoom wax bu neex muuñal leen reyal leen bokk na ci sa njëkk sa digganteeg sa mbokk di ko yóbbante nuyoo bokk nga di gis su xajul ci wërsëg bi nga di ko yóbbante nuyoo bokk nga jee gis su ngeen dajee nga leeral sa kanam nga ree su yóbbante amul nga ñaanal ko nga ñaanal ko nekk fi gëj naa koo gis yal na na yàlla defal nangam defal ko ko yu'izukum la'allakum tadhakkarun maa ngi jëlle maa ngi jëlle tere yi maa ngi delloo demiri jamaa joobule ca ñett yu jëkk ya ina laa yaamuru bil adl wa ihsan wa itaa'i dhil qurba ñett yaa yomb yooyu la santaane doora wax nag wa yanhaa ani fahshaa'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun kon ina laa yaamuru bil adl wal ihsan wa itaa'i dhil qurba foofu laa yem ne ya'izukum la'allakum tadhakkarun ñu attaqué ñaareel وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي من يعظكم لعلكم تذكرون kon jàngal aay ji ba mu nekk nga ne yaidukum laalakum tadakkarun lii daal laa leen dicté lii laa daal leen sant ngeen téerete seen attention ngir mu jural leen fàttaliku ma fàttaliku ma jur ragal ma ragal ma jur topp topp jur mucc ci sa ndax ndax ci gàttal haqiqatan ñëpp yi yàlla tere xam nga ko ci résumé ndax ci sharia rek laa nekk te damay dem léegi ci haqiqa door a jàll ci tariqa ci résumé nag yàlla tere na ina wa yanha anil fihshaa'i benn banka fa baaraam wal munkar ñaar banka fa baaraam wala baax yi ñett yi ñett yàlla da koy tere ma firige ko nag firi mi gën a gàtt te gën a leer fursha yi mooy tooñ sa bopp munkar yi mooy tooñ sa morom baax yi mooy tooñ sa borom fursha yi yàlla da ko bañ mooy tooñ sa bopp mu kër yàlla bëgg ko mooy tooñ sa morom sa nawle baax yi yàlla bëgg ko mooy tooñ sa bopp gaa yi tooñ sa bopp baaxul gaa yi tooñ sa morom baaxul tooñ sa borom nag ëpp gën ci yéesi ama man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an il hawa fa ina jannati hiya al mahwa wa ma ubari'u nafsi annama salama rabishun illa man rahima rabbi لا أقسم بيوم القيامة ولا أعلم بنفس اللوامة نفس اللوامة نفس الأمارة أك نفس اللوامة أك نفس المطمئنة ينتبه كل يوم ñaari nit bu tooñee boppam bànneex a tax moo koy def loolu tax ñu duma ko ëllëg tooñ nga sa bopp tooñ sa morom toujours merey tax sa morom mere la koy yóbbe mere la koy yóbbe ba bu giifee di réccu tooñ sa borom nag toujours foo ko fekk bew la bew wërsëg wu yaat jàmm ju yàgg lu yootu jot ko inna insana la yabgha an raahu stahna yàlla nu yàlla musal ci yett yooyu musal ci jullit yëpp te yombalal nu ñett yële ñu paase yombalal ko jullit yëpp xeetu Mohammed astafirullah astafirullah li yàlla bind doon aadama ci gën wala xad karam naa daani aadam amul doom aadama yi jullit yee ci gën jullit yi xeeti Muhammad ñoo ci gën xeeti Muhammad góor ñaar gën jigéen foofu la la foofu nag la adab waaw ci ci waaw ci adab damay wax ne li yàlla bind da ngay wax ne ci teggin li yàlla binde yëpp li muy bari asamaan suuf garab ndox jinne nit yëpp nit a ci gën a foor jinne yi lenn nag ci nit ñi seen benn yiw dina remplacer lim bu rëy ci malaayika seen benn yiw ñi feebar ñi mel ni man ñooñu la ñuy werante seen jëmm ak jëmmi malaayika waaye li yàlla bind yëpp nit a ci gën nit a ko ci gënal te lu mu gënal moo gën yàlla lu mu gënal loolaa gën ku dul yàlla mën ngaa gënal lu gënul ñaar yëpp la koy yóbbi réere ka ngay gënal wala nga xam ko bokk par par parloo par parloo dina tax nga gënal ku gënul réere ki ngay waxal dina tax nga gënal ku gënul waaye yàlla ne par parloowul te kenn réeru ko ku mu gënal moo gën nit a gën ci li yàlla bind nit ñi jullit yee ci gën jullit yi du yéen yàgg na alastu bi rabbikum dafa yàgg jullit yi itam xeeti seydil wujudi wa alimi suhudi moo ci gën xeeti Mohamed yooyu di jullit bi ñu leen dajalee borom xam-xam yi dañ ci ëppante al awliya yi ëppante ci ba ñu dem ba góor ñi ëpp doole jigéen ñi ñu ne nag suñ borom nag ne teg naa leen ci sama suuf tegal leen ci ci sama coobare dinaa leen fi jël si jël si bu ngeen dul xam kañ la du ngeen xam it nan la dinaa jëm ak yéen foo xam ne ku amul ku la jidd ci lëndëm googu keroog di nga réccu loo doon juddoo e gars yi ñëpp daw ku ne jéem a ut gidd bu la war a yóbbu mais nag daf ci am ñu yàlla téye ci seen loxo baaxee leen wala yadaxu ila daari salaam am waaye nag wa yahdi man yacha ila sirati almustaqim alquran la wallahu yàlla yadaxu oote na ñëpp fu mu leen jëme wala yadaxu ila daari salaam pour ñu dugg kër gu ñuy wax këru jàmm kërug mucc kërug ñàkk fatigué kërug ñàkk jaamu yàlla te mu sax bay laa yomal xiyaam falaa oo ñëpp waaye bi ma ooyee ñëpp nag ba ñëpp jóg taxaw dama juwaaloog ñoom jukkat ñama neex yàlla la leen ca yoon wa ñu jàll kon yahdi yada walaw yadoo ila daari salaam ama waaye wa yahdi man yasaaw xaasha ila siraat almustaqim ñooñu bi nit ñi gëlëmee ku ne di làmb ku la war a ku la war a giide kenn ku ne la muy sa wàll ca nga juux waaye dina ci am gidde yoo xam ne ñi ca yàlla yemale natt la waaye duñu mën a doon gidd bu mën a jàll te gars yi dëgg-dëgg buyin xam ngeen buyin ah buyin buyin avion bu rëy boobu la mu tudd waaw kay buyin bu yeb ba fees ay jigéen yi biiram ci sax liir yi naan ko ngi ci màgget yi mënul a juba ngi ci borom responsabilité yu rëy yoo xam ne bu ñu guddee àlla lu bari yàqoon ci yu diis ginnaawoon ci ñu cëppeel ko ci aéroport aérodrome bi borom yi galan wàcc ci ànd ak équipage tam dem avion bi nag war a jóg àggali jiwaat yoonam ñu ñàkk lu ñuy def seen benn waay nekk sa papa tey indi avion bi kay àggali fekk nag jotu la jàng jàngu nikkal yi su tax mun la dépanne sax oto jamono bi ñu koy oona dañ ko fekk mu man te dafa nag berkata dañ koy daane te asamaan sa ngi dem lëndëm ba maa bee sat bët yi neexul ñu ne ko yóbbul avion ku am xel ku ne da ngay fab sa bagaas doo doo def sa formation da ngay dem di mais am na si gidde yoo xam ne noonu la ñu mel ci ci ci ci foog ñu def ndànk foog ñu tey foog ñu toxañu foog ñu xalaat yàgg naa leen a wax ne caas mënul jiw mën na maafe mën na muraake mën na baafe waaye mënul jiw te bari na fi ñoo xam ne saaku caas rekk lañu boros nar koo def jiw di xaar ba sébbite mooy buñ leen suulee ba sébbi mooy buñ la suulee su tawee ba am ñaari fan nga fab saaku caas jikko ci suuf rouge ba mu set nga raadu ko ñetti fan jot ñuy seet cax cax ka gerte gi sax naam saxul ba wëree sa tool xam ne caaf mënul ke day fekk nag asamaan bu séddiwaat mooy langaamu ci sëriñ bu matul sëriñ ba teel te yàlla dellu si ka la in hakkalimtum xayra amin wala ba sax ila yum yufas duñu suul kenn mu dem ku yàlla dimbale nag ba teg la ci sa loxo si ama tijaani sori nga am ci sëre bu gàtt ni Maulana Hadj Malick radiallahu taala anhu xam ne ci nijaayam rek la ko jokkalikoo ci biir kër gi mu jële ko ci Umar Fuuti yu jële boo xam ne doy na sa waxtaan ba jëm ta sox mu jële ko ci Mohamadul Xaalis jëli boo xam ne Cheikh Tidiane yi dee bàttale ko ne am na nit ku ñuul ku war a jël tariqa bi nag yan daje Medinatul Munawwara Omar Fouti yi dafa ñëw ci jàkkine bi rek di xool Momadou Xaalid Momadou Xaalid di ko seet ku ne Cheikh Tidiane jox na la sa sa sa meew moro ñu nga daje ci xabru Rasulullah mën na ko jàppal xaar mu jóge ci dafa am benn waykat bu baax bu way yàquta farida sëriñ bu bari doole te am xam-xam yàlla may ko xam-xam ak jot mu sarxaa ko tudde ko duratul xarida sidi muxtar borom dafa wax ne in qiila an li ahmadiya panzahi nadirun faqul la la la min awali wahla photo yi fi nee na jamono bu la nit bettee bu la nit bettee ne la hey ndax Ahmad Tijaani